Eh, dañoo ñëwoon ci invitation wu tonton Joseph Ndéné bokk ci parrain yi dafa invité ASC bi ndax mu am fu mu jaar ak ñoom dañu woon tournoi de football parrainé ko muy tournoi bu am succès tournoi bu réussir réussir na. Eh, ñu yëg ko si ay moroom ASC ñu invité woon yëg ko bu baax a baax ndax euh, lu mu fa indi comme cadeau wax dëgg fa yàlla jàppale na ay ASC ba fubalee nañ ci ren si biir ASC bi nag ñu bëri teew nañ fi bokk na ci Pape Diop chargé des finances monsieur le vice-président mu ngi nii Djibril Sow ak euh, ñoom dongo commission supporter ak ñeneen ak ñeneen euh, ñuy gërëm tonton Joseph di ko jagleel diplôme de reconnaissance vraiment ASC bi mu ngi reconnaître bu baax ak yu ngay def ak euh, yéen ñeneen autorités yu fi nekk ñoom monsieur Dar maa ngi doon gis beneen monsieur Dar di sànq de la poste Euh, moom aussi ñu ngi koy remercier ndax euh, jàppale na ASC bi ci ouverture de ñu ngi leen di remercier bu baax a baax euh, monsieur Joseph ASC entente 2345 de Kër Massar moo lay jox diplôme de reconnaissance bi di la ñaanal xéewal yi gën a yokk yàlla dolli promotion yi yéen ñëpp yéen autorités yu fi nekk ak homme politique yi dinaa ci wax benn kaddu rek xëy suma kaddu ñogul mais mënuñ may jaglé lu toll nii te waxuma ben kaddu donc entente 23 euh, 45 euh li ngeen may jox ni ça me va droit au cœur mais na ngeen xamné ne rek ndegem ñi fi jaar loolu li ñu wax fi lañu dëkk moi je suis natif de Palmarin mais comme fii laa dëkk euh, jeunesse bi ci bépp lu ñu yëngu luñ ci mun dinañ ko def donc merci de cette reconnaissance te nañu viser fi ñuy jëm jërëjëf